ñu moytu kuréel ñu xam ne jàngal Serigne tubaa rek mooy li am solo waaye kuréel boo xamante ne dees ci feeñal ne damaa xaritoog diw tax fu mu bëgg a jëmale kuréel bi jëmale ko fa wala diw daa am ngénte ñu jëmale ko fa waxuma ne ware su la jàng xasida ci ngénte de déedéet dama ne day doon loo xamante ne dangeen koy seq ci wàllu yàlla ànd ngir wàllu yàlla mu doon loo xamante ne day dëgëral